kawar goo bëgg a tàggoo ci sa yaram ba mu des sa bopp nga tàggoog moom ndax boo xasee armal mu ne la aaye dindi genn kawar ngaa leewi say we itam wat sa kawari naq jemp say mustaas te bañ wat ko bopp bi nag moom mën ngaa lalat ko leen itam defaru ba jekk ndax boo xasee armal mu ne la aaye yooyu yëpp moom wa sunnatul ihraami sunnay armal arbaxatun ñeent la alxuslu mooy cangaay la muttasilan mbir mu muy aju jokk bi ci moom nee na boo dee armal am na yenn sunna yu ci aju ba ci njëkk mooy nga sangu ca ngaay lu mel ne ni ngay sangoo janaaba bala nga armal te boo noppee daal di armal fi saasa nga sës ci rek wat tajarudu ak summiku nel ñaw bokk na ci suñuy armal ndegam góor nga bala nga armal nga summi yëpp yëpp ñaw ba mën a waru jigéen la mën naa sol moom ñaw te du dara loolu lañ ko tuddee sunna rek waaye warugar la boo koy def rek armé ba noppi sol lu ñu ñaw rek te jëriñu ca ci tàng ci tàngaay mbaa sedd rek daal di war am alamaan fii di daa in ci ak làmbaay wa isaarin ak teraxlaay wa naalaw ni ak ñaari dàll la ba tey sunna la soo armalee nga wut yett yi yare ko wut làmbaay koy sol koy teg ci sa kaw ak teraxlaay muy nekk fa tubéy daan nekk sol ñaari dàll yoo xam di nekk ay bot ndegam am ngay dàll boo solee bot ñu aaya ko wa salaatu rakkaatayn ak julli ñaari rakka min xayril faridati ci lu farata maanaam bala nga armal nga julli ñaari rakk yoo xam ne jàng mu baax waaye sopp bu jëkk ba nga jàng ci fatiha ak qul yaa ayyuhal rakk ñaareel fatiha ak qul huwallaahu ahad loolu sunna la su ko defee nag bu la neexee armal gi baña a topp genn julli te ko tey baax waaye mu topp julli naafila noonu ñaari rakk moo gën bu topp julli farata itam mu baax wa ak wax labbayka wax ci labbayka boo armalee sunna la bu yàggee te waxoo ko rek daañu alamaan dañ ko tuddee rek sunna waaye moom itam bokk na ci wari gar yi ci boo xasee dugg ci aj gi waxee ñoom waxee moom labbayka nag mooy nga ne labbayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu allahumma yow naa la ci gannaaw ak wuyu labbayka wuyu ci gannaaw ak wuyu laa sharika déet jenn aji bokkaale la la labbayka wuyu naa la ci gannaaw ak wuyu innal hamda naka cant ga wan ni ak xéwal ga lakka ñeel na la wal mulka ak nguur ga laa sharika amul jenn aji bokkaale lakka ñeel na nee na booy wax labbayka noonu nga koy waxee yoy wax labbayka allahumma labbayk labbayka laa sharika laka koy waxee nuyu naa la ci gannaaw wi nag mooy digle nga digle woon nuyu si la aj si kaaba gi nuyu si naa la maa ngi nii def sa ndigal li wala yàq du dog ak talbiyata wax ga labbayka xataay ya la ba te mu duggee màkkata màkka nee na boo xasee armal tàmbalee wax labbayka da nga koy taqoo rek taqoo goo xam day diggu doomu xanaa boo sonnee noppalu bu amee la dog mel ni julli mbaa lekk mbaa nelaw mbaa naan mbaa nuwëg ñi nga tase la yooyu yëpp nga dellu yeesalaat ko rek sa kàddu yem wax gi tam yem du ko wax ba xëx wala nga dem ba sam xel jàppatu ko laam yi rek moo koy wax yëpp bul ko def waaye na bul ko bàyyi mukk benn yoon bàyyi bu wéy wér daañu wax kañ koy bàyyi fa isa taafande wër na wa saxaate mu dox safa ak marwa xaawa daxaa mu baamu ko li rawaaxi musalla xarafata ba ci ngontal julikaay arafa dafa wax ngontal waaye dem lañ ci jublu daa bëgg wax ne la béykat boo armalee ba di ko wax moom bala nga ko bàyyi dëgg-dëgg day mi tey la arafa ba nga ñëw ba ca jullikaay arafa ba foofu nga koy bàyyee du tee nag boo duggee màkk nga bàyyi la bayka ji ba wër kaaba gi ba dox safa marwa ba noppi boo doxee safa marwa ba noppi nag wala bët di ko baamuwaat nag boo sonni noppul nag bañ na tey la arafa ba nga ñëw ba ci jullikaay ba nag foofu nga koy bàyyee nag wër ci aj gi yëpp boo fekkee ci fiqu maalillah wa aw juhul ihraami anami armal yi arbaxatun ñeent la waaw nee na boo dee armal aj am na ñeenti yéene yoo xam ne bu ci nekk mën nga koy yéene wa afdaluha bi gën ci ñoom al ifraadu mooy ifraad waxuwa moom nag ifraad ay yuxrima mooy mu armal bil hajji ci aj su xaj ci jëfi aj ga yu sanu def na sunnaal la xooñeel ko ay yuxrima mu armal ay yuxrima mu armal bi xumrat ci xumra ifraad nee na bu dee fiqu maali moom moo gënal mooy nga yéene aju kese ba def ko moom dong ba àggal li wax na ne boo noppee nga tegaat ca xumra daa mel ne moom daa sart ne balaa ifraat gën danga ko def ba noppi teg ca xumra te bu fekkee doo ci teg xumra kon du gën te demewul noonu bu dee fiqu maalik moom doonte aju kese ngay def ba noppi nut laa xumra itam du tey rek ñoom ifraat googu moo leen gënal ñoom sartuñu ci moom ci gën gi nga teg ci xumra ci gannaaw ba dañu jàpp ne xumra suumu su beru la moom waa euh, ba mu ne yent la kenn kooku rek la wax xeet yi ci des nag mooy bi ñu tudde tamaton ak bi ñu tuddee xiraan ak bi ñu tudde irdaaf irdaaf moom xeetu xiraan la tey def ne soo armalee xumra ba ci wër ga nga wëlbatiku nag léegi yéene ac waaw loolu moom lañu tudde irdaaf waaye boo seetloo xeetu xiraan rek la wa ihramu rajuli armalu góor ga fi wacci yi nekk na ci kanamam war asi ak boppam maanaam góor su xasee armal dañ koy aaye muur kanamam mbaa muur boppam day bàyyi rek kanamam muy kanamu kese ak boppam muy bopp kese mooy fa yaxrum fa yaxrum dana araam xale ci moom satruxuma seenu suturaal bimaa ci lépp loo xam ne yu xaddu def na ko lim def na ko konte saatral mi aju suturaal kal ximaamati ni ki kaala wal xirxati ak aw sagar wakku lima ak lépp loo xam ne yum tafam def na jëriñoo bi ci moom min al ci tàngaay wal bardi ak sedd waaw nee na boo xasee armal bul muur sa bopp mbaa sa kanam ci dara luñ mel ni des nga ko muure moo xam kaala la moo xam mbaxana la moo xam ak tàngaade la moo xam sagar la mbaa yépp daal loo ci xam ne muure nga ko rek ba jariñu ca ci faj tàngaay mbaa faj sedd rek daal di malamaan wa yaxrum dana araam xaalis ci mukallaf lubsul xaatami sol ab jaaro bu dee fiq maalik moom dañ lay aaye lépp lu mën a warub cër donte ab jaaro la xam ne wër baaraam bi du tee ñu aaye la ko moo xam ne tax mën a warub cër dañ ko ràbb ba noonu mbaa ñu butuñe ko mbaa ñu fas ko mel noonu du tee ñu aaye ko wa ihraamul mar'ati armalul jigéen fii waccihaa nekk na ci kanamam wa kaffayhaa ak yaari tenqam faqat dong maanaam jigéen moom bu xasee armal dañ koy aaye muur kanamam mbaa ay tenqam ndax xam nga kanam gi tenq yi moom bu dee jigéen du awra kon yooyu yaar du ko sañ a muur teew na wala xaa ñeel na ko an tas du la mu yoor xalaawa ci xaaj kanamam tawban malaan li aj li satri ngir suturaal wala tax risuhoo waaye du ko dëgëral bi ibratin ci posa wanawxe ak lu mel ni moom waaw nee na bu fekkee bëgg naa suturaal kanamam ndax góor ñi mu taseel moom jigéen ji yooyu jamono daañu ko may mu bàyyi muuraay gi lang ba muuraale kanamam te bañ ko ca dëgëral ak posa wala pinga yu mel noonu day bàyyi rek mbalaan mi yooru noonu ba làqaale kanamam rek noonu way xarum dana araam xalal muharimi ci aji armal masu tiibin laal gët yaa laqu goog dana ko taq wala goog dana taq rek bil jasadi ci yaram wa wattaw bi ak malaan ma kal miski ni ki misk wal xambari ak xambar nee na ki armal moo xam góor la moo xam jigéen la dañ koy aaye lat ko lañ nag yaar la daam lat bu góor ak bu jigéen bu jigéen mooy bi nga xam ne boo ko laalee mu taq la bu baax ba noppi xeeñ bu baax mel ni misk wala xambar yooyu boo ko laalee dalay taq bu baax bu noppi xeeñ bu baax kooku moom ñëpp lañ ko aaye muy góoru jigéen kooku ci def rek amalamaan mu des nag lakk lakkalañ bu góor du góor mooy boo xam ne boo ko laalee du la taq bu baax du xeeñ bu baax nekk ward wala jasmine ak xeet yi nga xam ne xeet ko lakkalañ woyof lañ duñu taq bu baax duñu xeeñ bu baax yooyu lañ ko sib rek moom yem ci taxu ko araam boo ko defee itam dañ koy sib waaye du am alamaan wa dexnu si ak diw bopp ba boo xasee armal yu góor muy jigéen dañ koy aaye diw boppam wala diw aw yaramam donte diw ga neexul xet sax du tax mu sañ koo diw di bàyyi noonu rek wa taqlimu dufrin ak lay weex wa ibanatu shaharin ak faccal kawar wala nga dindi kawar xos armal muy góor muy jigéen dañ koy aaye lew wenn we wala dindi benn kawar wal jimaahu ak booloo wa muqaddamaatuhu ak yooyu jiital njëkk booloo xos armal aj wala xumra ba keramu ko day araam ci moom mu jote ak kam yu sëyal rawante na jote bu araam ak sax yooyu jiitu jote lu bokk te jote ci sawukaay laalante gi ci yaram wi ba loolu lañ koy aaye su boobaa na woyof sud woyof sud dina yàqu alxaju aj ga bil jimaaxi ci booloo googu in waqaxa xew na xam la wuqoo fi ci njëkk taxaw arafa aw baxdaxoo wala ci gannaaw taxaw arafa qabla tawaafil ifaadati ci njëkk waruk ifaada waram yu jamratil xaq bati ak sànni jamray xaq ba fi yawmi nahri moo xam ci bisub tabaski bala aw qablahu wala ci njëkkam maanaam takkal na la nag jote boobu bu amee kañ la war a yàq may jàppal ne waxtu nga armale ba ke da ngay taxaw arafa jote boobu bu amee yàqaaj gi guddi googu itam nga xam ne ca nga taxaw arafa xam ne boo xëyee nga war a dem minam sànni jam rey xàq ba jàll màkk def tawaaf ifaada guddi googu ba tey bu ci jotee boobu amee aj gi yàqu soo xëyee nag ne tey maa ngi ci bisu fukkeel bi xam ne tey ci nga war a sànni jam rey xàq ba ci war a def bis boobu bu jote bi amee te defagoo kenn ci yooyu yaar rek ba tey aj gi yàqu soo xasee def kenn ci yooyu yaar nag nit ki sànni nga jamre xàq ba diggante ba ngay def tawaaful ifaada nag nga far def jote boobu koy du ko tax a yàqu ba bu fekkoon ne defagoo sax jamre xàq ba defagoo tawaaful ifaada waaye bis bis bis fukkeel bi jàll na bis fukkeel boobu jàll na nga dem ba ci fukk ak benn te fekk yow defagoo woon yooyu yaar yooyu jamono bu jote bi amoon tam du tax mu yàq Mm. waaye jàppal ne bis moom li fekk yaalu ci génn googu fekkee dafa goo kenn ci yaari itam boo bu jote bi am rek dal yàqu aj gi ar ruknu bi asaani bi aj ñaareel at tawaafu na ko waajibaatun ay warteef ay suna wa mustahabaatun aw yu ñu sopp waaw nee bi ci aj mooy wër kaaba am na warteef nag ak i suna yu ñu sopp fal waajibaatu warteef ya si tutun juróom benn la asalaamatu mooy mucc minal xadasi cim toj wal xabasi ak xabas maanaam warte fi bokk na ca booy wër kaaba da ngay mel ne ku julli ci ak wet maanaam mooy doo amee benn sobe te day nga amee laabu xadas boole ci maanaam bu la jàpp waree nga amee jàpp bu la sangu farata waree nga amee sangaay farata ba noppi nga tàggu sobe boole ci muy laabu xadas ak xabas bu fekkee tiim moo war itam nga tiim wa satrul xawrati ak suturaal awra ba tey dañuy sàng sa boo def yaramu neen mbaa awra ji feeñ bi tey moo ko doon jul def ko ñooy moo du doy jublu xibla rek lañ jul sart waaye ci moom nañ ko ci sart ci yooyu mel ni laab geeg sàng awra ak def nii ba xan wesaari yi walis càmmoñam maanaam ni kaaba gi boo ko dee wër da koy càmmoño te bañ koo ndey jooru boo ko ndey jooroo du doy wa tawaaf wër ga sabxata sabax wa tawaaf wër ga sabxatu aswaaj juróom ñaari wër la ba juróom-ñaari yoon la daaxilal masjid ci biir jàkka ji mooy wër bi daa war a mat juróom-ñaar su ko manqué du doy te itam daa am fu ñu la sàkkal ne fa ngay wëri mooy ci biir jàkka ji dañ laa sàkkal wërukaay bu fekkee wëri yoo foofu ba tey du ak génn mboolem yaram bi xanil kaaba gi maanaam boo wër gi sa lépp da koy génn ba tàllee sa loxo mu ci biir sax kaaba gi sax mu daal doy bu sax bu fekkee da ngaa wéy noonu siggiwoo ba taxaw jon door a jàll sax day mel ne kon wër bi ñu la waxoon defoo ko ndax dara dara boo ko wër su lépp da koy génn waaye bu sa dara duggee ci biiram rek day mel ne wër bi matut kon sa sa yaram lépp da koy génn boo ko dee war wasalaatu rak xatay ak julli ñaari rakka wasalaatu ak xatay ni xàqibahoo ci gannaaw wër ga maanaam boo jul boo wëree wër gi ak nga dem julli ñaari rakka fa ñu wax maqaam ibrahim bu xate na foo ko jullee rek baax na waaye ñaar rakk war gar la soo ko wa masnuunaatuhu yañu sunna la moom wër kaaba xamsatun juróom la waaw dafa wax ni wër kaaba am na juróomi sunna almasiw dox ak tànk maanaam boo wër nga dox ak sa tànk bañ a war ñu bañ laa yenu ndegam amoo ngànt loolu dañ tuddee sunna sax ni warugar la su fekkee ne mën ngaa dox ba noppi ñu yan la mbaa nga war rek nga daal dem alamaan wa taqbilul xajari ak fóon doj wa al aswadi wa aji ñuul bi fii ci gimiñam fi shawti ci yoon wa al awali wa aji jëkk in qadara neem àttan na ko àttan na ko mu mën na ko rek dafa wax ne boo dee wër yoon wu njëkk wa nga jàdd fóon al xajarul aswad soo ko mënee loolu sunna lay doon su fekkee mënoo ko na nga dem ba fa nga mën a yem rek loolu la mépp foon bi ko da nga koy mépp ci sa gémmiñ yow ci nga mën a yem daal di wax allahu akbar wàññi ko waaye boo ci mënee àgg nag yoon bu njëkk bi moom nga àgg ci moom foon ko sunna la yoon yi ci des nag moom nga jàdd foon ko lu ñu sopp rek la àggul ci sunna wala mu sa rukk ni ak laal ponk ba al yamaani bay ko jóg yaman fii awali shawtin ci aji njëkki yoon yoon wi nga xam ne moom ngay njëkk wër kaaba gi su fekkee mën ngaa laa mën ngaa raay sa loxo ci ruknul yamaani itam nga raay ko sa loxo sunna la yoon yoon yi ci des nag moom nga raay ko sa loxo soo ko mënee lu ñu sopp rek la wa duxaaw ak ñaan wa salaatu ak julli ala nabi ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam ñaan gi ngay ñaan boo dee wër kaaba gi te ko boole ci sunna yi julli ci yonante bi tam noonu mu boole ko ci kon ñaan da ko cee boole ci sunna yi aju ci war kaaba ak julli ci yonent bi ba tey da ko cee boole war romb ak lagg li rijaali ñeel góor ña fil ca wër ya ak talaasati ya di yett al ula ya di jëkk fi tawaafil xudoomi ci dikk màkk lay firi maanaam boo ñëwee màkk te fekk mu yaatu sa digganteeg dox maanaam boo ñëwee màkk xam sa digganteeg des yaatu nga xañ na fi kon dañ lay digal des na ko wax wërub nuyoo maanaam booy dooraak si màkk rek wër bi ngay wër ndegam sa digganteeg taxaw arafa yaatu na waaw kon wër boobu ngay njëkk wër mm, waru gar la bokkul waaye waru gar la boo ko bàyyi dem alamaan waaye fi mu la ko wax nag mooy lagg ba nga cee lagg waaw lay wax ne moom sunna la ci wër boobu waxoo moom lagg nag fawqal machi nekk na ci kaw dox wa duuna jari te nekk na diyees taw bu baax lagg moom nee na du xaw a sori ndax boo ko dee gis wees na dox ndànk waaye agul ci daw bu baax wa mustahabaatuhu yañu soppam moom wër kaaba kasiratun ajabari la man xaa bokk na ca tarkul kasiiri bay jàng lu bari wala nga ne tarkul kasiiri bàyyi aji bari min xiraatil quraan ci jàng alquraan yéen bokk na ci ñu sopp ci boo dee kaaba nga bañ bari nga bañ la nga bañ a baril jàng alquraan xanaam ñaan ak julli ci yonante beeg rek te bañ a baril jàng alquraan wa tarkul kalaami ak bàyyi wax bokk na ci ñu sopp ci boo dee kaaba nga bañ wax jenn wax ji yëfi